سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله سبحان الله العظيم لا إله إلا الله hasbunallah wa ni jataay la boo xamante ni euh, liñ ci jublu mooy xool ci biir waxtaan lépp lu gàmmu gi yittewoo ci wàllu taxawaay diggante service su état bi ak comité d'organisation bi ñu jël ci ay engagement am luñ ci tàmbalee def ci wenn wàll wi li ci des ñu war koo mottali ci léeg ñuy egg ci gàmmu gi te mu doon ndigal loo xamante ni dafa bàyyeekoo ci son excellence monsieur le président de la république Macky Sall nga xam ni digganteem ak sëriñ bi ku nekk xam na ko waaye digganteem ak mboole seen këru diine yi nga xamante ni ñu ngi ci Sénégal tamit ku nekk xam na ko mu jox ñu ndigal te loolu conseil des ministres bii ñu weesu rek moo ci mujj ni ginnaaw bi ñu génnee ci màggal bi ñu ngi dëgmal gàmmu bi kër gu nekk ci Sénégal war a gàmmu na ngeen ci am taxawaay bu mat sëkk ba lépp loo xamante ne aju na ko ci taxawaay ngeen taxawaay ngeen taxawee ko fa ànd ceeg service su état bi gunge leen jàpp ci liggéey bi ba li nga xamante ni moom lañ ciy séntu ci aw yiw ak ci wàllu doxalin ci organisation gàmmu bi ñu am ci lu kawe suñu njort gàmmu du ñu euh, tayyi ci di ko fàttali dafa doon gàmm goo xamante ni li koy mandargal mooy te di waxtaan wi leeral na ko boo jëlee dimension bi mu am duñ ni sax dimension rek régionale la mais dimension international la réew yi wër Sénégal yépp dañ koy teewe seen doomi réew di fa bàyyeekoo di ñëw di ko fekkee di ànd ak yéen

échange ak euh, weccele yi nga xamante ni mi ngi am diggante Sénégal ak yeneen réew ñu ko ci seetlu ba tax na dina dundal gox waaye dina dundal koomu réew loolu euh, lépp yiw la ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di wax ni service su état bi dinañ taxaw su la coordination au niveau régional du gouverneur ba lépp li nga xamante ni moom mooy li ci war ci wàllu exécution engagement yi ci ñu defagul ñu taxaw ci ba fileeg ñu yegg ci gàmmu bi ñu def ko ndaxte loolu lañu suñu kilifa sant muy le président de la république Macky Sall euh, di yóbbante ziyaara ak nuyoom jëmale ko ci xalifa bi di wax tamit ni ñu ngi rafetlu waaye di wax allahuma amin te rafet nañ ci njort. sur euh, instruction de son excellence monsieur le président de la république Macky Sall que cette réunion nationale consacrée aux préparatifs de la tenue du Gamou de édition 2021, a été tenu en présence des services de l'État, mais également du comité d'organisation. Il s'est agi pour cet événement de dimension internationale parce qu'enregistrant tous les ans des pèlerins venus de la sous-région, mais également du monde entier. Je disais tout à l'heure que c'est un événement avec une double dimension. Celle la première qui concerne le spirituel, mais l'autre importante également qui concerne le volet économique. Parce que nous savons que traditionnellement, ce Gamou de Ndiassan est l'occasion d'organiser un marché qui dure au moins un mois. Pour toutes ces raisons, des instructions nous ont été données par le chef de l'État d'accompagner dans les domaines qui concernent l'organisation du GAMU, tels que l'eau, l'électricité, l'assainissement et le commerce. Et toutes ces questions ont fait l'objet d'échanges fructueux. Le point a été fait sur le niveau d'exécution des engagements. Et comme c'est un gamou qui est organisé la semaine d'après la naissance, qui suit la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Le suivi sera assuré par le gouverneur de région ici présent pour que de façon permanente, qu'on s'assure que tous les engagements qui n'ont pas encore été exécutés et qui d'ailleurs représentent une infime partie de l'essentiel des engagements le sera d'ici à la date qui a été retenue. Nous transmettons nos salutations au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, au Khalif général de et prions pour que Dieu lui accorde encore une longue vie et la meilleure des santé. سبحان الله العظيم لا إله إلا الله حسبنا الله